بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lu ñoom bokki taalibe yi sant rek ci kaw li ñu waxoon ci mbirum jumaa ji ñu waxaat ko mu gën a leer ndax ñu mën ko def fan mu ngeen ko def dama am ñaar ñu ma seq ñoo xam ñu xëri xëri lañu <laughs> bokk saa dara aw jotit waaye xaadim Jóob ngi nii eh, nit bu la joxee léppam eh, doo ko mën a gàntul dara eh, sëñ Cheikh mi ngi nii Cheikh Abdou Latif moom it noonu Euh, moo tax fii ne mooy jéem wax waaye wax dëgg yàlla sawul maa wax sax fi ne ah, waaye waxoon nañ ko ba noppi dañ koy tënkaat rek mbirum jumaa ji euh, moo di rek euh, moom jàkkay Serigne Touba la nit ki nga xam ne dëkk bi ne darul mi ne nekkee dëkku Serigne ne jàkk yi nekkee jàkkaam darul mi bokk ci dëkkam jàkk ji bokk ci jàkkaam Euh, loolu euh, euh, lañ bëgg waxtaane rek na mu demee ni ni mu ni mu doxee bi bi bi bi Serigne Bachir nekkee dëkkoo Daaru Minam ci tawfeex ju am ci tawfeex ci sëriñ bi mu dëkkoo Daaru Minam ba fi la wàcc liggéey boo fekk na jàkka bant bu rëy moo fi nekk yaa yàlla dogal kilifa yi nga xam ne ñoo doon ay bokkam ci bokk ci ñi gënoon a jaxasoo moom ñu doon waxtaane gannaawam ba xam euh, fu ñu ko war a euh, war a yóbbu fu ñu ko euh, ak moo nu moo jiite liggéey bi maanaam taxawu bi sëriñ Cheikh Fatma sëriñ Cheikh sëriñ sëriñ Cheikh sëriñ sëriñ Mudu Xawa eh, Balla ak sëriñ Cheikh Xawa Balla ak sëriñ Mudu Xabbaan ak sëriñ mooy wacciit ci di kilifa di mbokkam mu ko jege ñoom ñoo doon waxtaane taxawaay bi waaye ba ñu nag ci daal eh, sëriñ Mudu Xawa Balla sax booba mi ngi toog fauteuil bi mu toog maa ngi nekk ci gannaawam moo jëkk wax ne jàkkaam ji de baax na loolu ba mu ko waxee rek li ma nekk ci mbirum tiis tiis dama daal ne lu am mbégte lool ndax nit day bëggub cëram euh, daaru mi nag wax dëgg yàlla dëkk yëpp dëkk sëriñ Tuubaa waaye nag ci nit day bëggub cëram moo bi mu waxee ne jàkkam ji baax na fii ci daaru mi nan man dama daal di lu amoon ci naqare dafa daal di mel ne dafa dafa soppiku di mbégte euh, ñu daal di ànd ak moom ca loola euh, yàlla def na jàkk ji keroo man fa laa timis waaye ci guddi ga fa la sëriñ Bassirou France eh, loolu moom noonu mooy mbirum mbirum mbirum jàkka ji eh, bi mu ñibbisee foofu eh, fekki sëriñ bi la sëriñ Moussa jëkk xalaat rek moo di def def def dëggee jàkka ji daal di si jublu fa saasa jamono yooyu fa tabarakallah taxawul daal di koy liggéey di jublu fa saasa ñu daal ko koy liggéey eh, mu mel na mu mel eh, moo tax nag eh, sëñ Moussa it fi mm, taxaw taxaw yi sëñ Bassirou alhamdulilahi rabil alamina ñu sant ci lool yàlla ndax taxawaay ba alhamdulilahi rabil alamina dara desu ci ndax ñu saa jàmbaar Eh, bokkut ak noonu noonu yaafus la waaye moom jàmbaar la eh, taxawaay ba fa tabarakallahu dara desu ci noonu loolu mu taxawee ci jàkk ji daal koy liggéey fa saasa nii la taxaw ci lépp nag lu mu ak lu mu sew sew lépp taxaw na ko gannaaw sëñ bi ne ca loola ne ca loola ne ba ni mu wàccee fekk si sëriñ Basiir foofu eh, bi mu ko fekk see foofu nag manit la ma jëkk xalaat moo di jàkk ji rek ndax booba fa tabaarakallaahu jamono ji sëñ Basiru dem sëñ Moussa lëggee na ko lëggee boo xam ne mel na mu war a mel waaye nag euh, doxinu sëriñ bi euh, moo moo moo moo moo moo gaaw te bari njëriñ euh, ma daal xalaat ne kon jàkk ji waras na ko waras na ko yeesal la sëriñ Moustapha yàq nañ ko ko jëkk xalaat laa ci jublu nag boobu itam loolu tax na euh, dama ko woyafaloon man ci dégg ne ngeen ne yeesal rek yàkkale rek la leen wax loolu rek laa ci jublu woon moo tax boobu sax fekk na bi Cheikh Salihu euh, ak ñi ma demee moom euh, ñëpp mag ñëpp xam ko waaye taxul sax moo waxtaan ci moom ndax woyafal gu ma ko woyafal la jàpp ne rek la yeesal la rek a yàkkale daal di jublu ci liggéey ba ba ñu doxee tuuti Cheikh Saleh wàccu liggéey fekki sëriñ bi euh, Cheikh Mahamadou Lamine euh, ibnu Cheikh Mahamadou Fadil daal di taxaw euh, waaye loolu lépp taxul sama xel dem ci ne jar na daal muy loo xam ne des na ci laaj ndigal ndax yeesal rek la waaye nag ci këru xëruk murit xëruk taalibe ak sëñ bi neex a liggéeyal ni mu ko sémbee eh, yéen ji di gën di sell yitte ji di di dolliku muy eh, eh, gën a xir nag ci liggéeyal sëriñ bi ñu doxee tuuti loolu tax muy yàq muy yàqale gi ñu ci jublu muy gën di yàqu muy gën muy pëste di ko gën di yaatal gën di yaatal dem ba ci digg bi ñu xam moom xaw a doy waar ndax euh, daal di mel ne dafa taxaw taxawaay jumaa euh, loolu itam euh, dal nañ ci am xalaat ndax taalu bi moom murit moom ci ndigal rek lay nay bi sëmb bi àggee foofu demee ni mu demee te fekk na uh, amuñu ci woon ndigal lu yees loolu tax ma am ci xalaat nag du xóotu xóotu xóotu uh, xalaat ci ni ma ko war a xalaate uh, ma xam ni kon lii mbir sëmb bii kat ni mu taxee bu àggee dana am lu mu laaj lu mu laaj moo di mu ci ndigal rek la war a bi kon day day dana laaj nu dabaatal ndigal li ni ko koy dabaatale nag moo di rek <clears throat> dama xalaatoon booba bu jege bu àgg bu gi jegee ma ma waxtaan sama mbokki daara ñu ma bokkal daara yi sëñ Basiru euh, xamal leen fi ma ci toll ak li ma ci xalaat euh, loolu euh, bu ko defee bu boobaa nu nu nu yeesalaat suñuy pësteef gën a selwaat suñuy xel gën a réer gën a gën a gën a réer suñuy itte euh, fas yéene jo dabaatal ndigal li nga xam ne euh, dañ ko waroon am bala ñu tàmbali dara euh, àgg àggoon na sax si fa mu àgg ci man sax moo di moo sañoon lu lu ñu def ci liggéey bii lu ñu lu ñu ci def rek moo moo sañoon dañ koy tàmbaliwaat dajale loo xam ne Euh, danañ seet lu nu def ci jumaa ji rek nu daje lu na toll euh, jote ko dabaatal ko ndigal li noonu foofu la sama yéene àgg waaye ma xam ne itam euh, loolu dana yeex te yeex gi it mën naa yeexe ko noonu itam man naa ñàkk xëy na lanu cay lanu cay lanu ciy lanu ci lan lanu manqué lanu ci lanu yëg ni manqué na ca loolu xëy na ki ñu ko seqal euh, danañ ko mën a morsali tax ma ne nag kon nanu góorgóorlu suñu kem kàttan euh, sàkk addiya teel teelagunu sax sàkk addiya noonu jot jot suñu bopp la ñuy tal jot jot ndigal moom lañ tal kon góorgóorlu bu baax a baax baax a wax kenn ku ne parce ba nga amoon ci jàkka ji ba ñuy ba door ba ñuy tàmbali liggéey bi parce que ba nga amoon nga amaat ko euh, boo ci mënta def lu ëpp la nga ca defoon itam nga góorgóorlu ba def ci la nga ca defoon